بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأسنى قديمه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen siyaar nuyoo boo xamante ne ñu ngi ko jële ci xalifa Cheikh Ibrahima Faati muy sëriñ Bachiru Mouhamadul Bachir Anta jëmale ko ci sëriñ Mbay Gay Sill mi nga xamantene mo fi wote dajale fi ci bis bu mag bi waye ñu wuy ci fi fekk kilifteefuk jotaay bi ak ki ñu tuddé jotaay bi ki ko fi téwal muy serigne mbacké ابن الشيخ محمد المصطفى مي رضوان الله عليه وارضاه mu nekk kilifa jataay bi ànd ak mboolem njabootuk sëriñ Moustapha May gépp kon sëriñ Bay sëriñ bi nee na mi ngi am mbégte lool ci sa bis bii ndax bis la boo xamante ne bu am solo la ci histoire buñu war di fatali génération yi ak xalé yi la ndax nit bu xamé histoiream dana tax mu gëna gor gorlu dana tax yit mu roy ca ñoña ta bis bi lim li bok na ci liñ ci gëna mëna mën rek moy l'islam lu mu jaraloon Cheikh ibrahim Fati ak liggéeyal kilifaam sëriñam di cheikh ahmadou bamba ba mu jaral ko jaay bakkanam jaay alalam jaay njabootam ak lu mu ko ca fekke rek yittey sëriñ Touba jooju na ko dem doxi mission ba ak lu ko ca mën di fekk ndax booba dem ndar yombutoon xam naa léegi la yomb waaye ndar moom dem fa yombutoon ñaareel ba ca des it ñime ku mel ne gouverneur général ba mën a def ak moom face à face mission bi ni ko sëriñ bi bëggee woon ca fulla ju mat ja ak pëseef ba ak dalga ku ko mënoon a def ku dut borom daaru ca jamono yooyu yombutoon tànnuk sëriñ bi it yombutoon kon yooyu yëpp daja na ca mu mate ko sëkk nag doxé ko niko ko sëriñ bi bëggé mission ba am réussir lool ndax wax nañ né sëriñ Basiru mom sëriñ touba lamu bind ci minanul baqil qadim borom daaru bi mu démé ngir yobbu leetar bobu fekkon na sëriñ bi ak colonial si tilim na lol ak ñi nga xamante ne ñooy ñooy jaxase jaxase nañ diggante sëriñ bi ak ñoom ba daanaka neexutoon a lijjanti waaye sëriñ Basiru nee na bokk na ci ñawuk boroom daaru gis na ne tarjumaan ji interprète bi nga xamante ne moom moo koy waxal li muy wax gouverneur gis na ne gouverneur moom moom gis na ne defut lan lu jar muy am aw tàngoor walla muy mer wala muy mu mu mu mu muy def ci mom lu nona noona te gis na ni gouverneur dafa mer mom borom daru ci ñawam seigne basiru neena mo xamne kon li interprète bi di wax bokut ak mom li nga xamantene mom la ko sëriñ touba yónni borom daru dal ne ndax sañ na maa ñaan beneen interprète ñu ne ko waaw mu dem wuti waat beneen interprète bu bokut ak interprète bi nga xamantene mom la fekk bi interprète bu mujj bi ñëwee borom daaru wax ko la mu bëgg wax ba mu ko waxee gouverneur mu gis ne gouverneur changé na maanaam tension bi nga xamante ne amoon na ko ci wax ji nga xamante ne interprète bu njëkk bi doon na ko wax ak bu mujj bi li mu wax gis na ne changé na kanam gi changé na réaction yi changé na kon loolu lijjanti na lu bari ba tax na gouverneur maanaam arme bi mu yabaloon ngir na dañuy jël sëriñ bi ci force mu assurer ko ne ko su fekente ne li nga wax non la kon lam ñama yabalon dama leen di wax ñu baña jël sëriñ bi da nga dem mu ñew wuy si non ma la ko sëriñ Basiiru bind ci Minanul Baaxil qadim kon mission la bo xamantene borom daru daf na ci manam euh, euh, intermédiaire ak diplomatie akuk dal ba lijeenti lam bëgg lijeenti ta xulo amut kaddu yu dis amut kon lolu danañ ko ci jangate bu baaxa baax ci ñawuk borom daaru danañ ci jangé it xam-xamam fu mu tollu ndax guddi googu ak lendeum la won metti won na lol te ña nga xamante ne ñoo ko doon gidde it pour mu dellusiwaat pour mën a wax sëriñ bi li ko gouverneur wax ngir sëriñ bi mën a ñëw ñooñu ñëpp it dañ ko doon réeral di ko wor waaye mu mujj sukkandiku ci yàlla rek ak la mu jàngoon ci xam-xam ci xam-xamu astrologie muy añ mën nu jóom ci la sukkandiku euh, ba ñëwaat Mbàkke Kajoor kon loolu it dana wone xam ba ñëwaat Mbàkke Baari fekk fa sëriñ bi kon loolu it dan mënees na ca jàngate ne xam-xam it am na solo lool ci koy jox mission war naa doon ku am maanaam compétence ci wàllu xam-xam waaye am compétence ci wàllu jikko akuk dal ak diplomatie yooyu yëpp mënees na ko cee jàngate ci génération yu bees yi mu am beneen bind it boo xamante ne mënees na ko cee jàngate muy sëriñ bay bis bii ki nga ko duppee ki nga ko duppee sëriñ bi bi may ñëw daf ma wax ci moom seeral ma ci moom yoo xamante ne seeres maanaam li ñuy wax témoin oculaire témoin oculaire mooy ki nga xamante ne li muy seere daf koo dund fekke ko yaakaar naa sëriñ Moustapha May sëriñ Bassirou Anta Niang lu mu ci wax lu mu dund la lu mu fekke la ak doonte sëriñ Moustapha May it moo ko mag ci ay at lool waaye ku ko bëggoon la ku ko nawloo woon la ku fekke lu bari ci moom ci ak ngoneem la sëriñ Bassirou nee na ba ñu nekkee koso yor na leetar boo xamante ne leetar bi soxna Maymunatul Kubra moo ko bind ci loxoom lu mu masaan di yónnee sëñ Moustapha May sax li ci ëpp sëriñ ba siiru la ko daan wax ne ko yaag sëriñ Moustapha yéen a ko bokk man leetar ba mi ngi yor naa loo xamante ne lu leen soxna May doon jox la ne ko yaag sëriñ Moustapha May soxna May mu kon loolu muy diggante bu yàgg boo xamante ne sëriñ Basiiru kon lu mu wax ci sëriñ Moustapha yaakaar naa dana doy sëkk ci kuy seere lu mu fekke sëriñ Basiiru wax ne sëriñ Moustapha day noonu mu mel noonu la masa mel nitu kese la nit la koo xamante ne xol bi dafa xalbun salim la amul dara ci luy taq walla loo xamante ne luy ëmb lu dut lu baax la nit la yit moom sëriñ Moustapha May nitu yàlla la nitu yàlla la woon ndax ak wilaaya du caagee ne lu ñuy fàggu ak wilaaya yàlla mooy seet ku ko soob rek mu jox ko ko bokkut ak wa maanaam nubu wa ak wilaaya ñaar yooyu du lu ñuy fàggu yàlla mooy seet ki ko neex mu def ko ko waaye du caagee nam jaamu yàlla gu bari walla wala wala wala xam-xam bu bari wala ci lañ koy ame sëñ Moustapha May kenn nattab lu wut ne woon wàllu la woon ndax bokk na ci li sabab ak wilaaya mooy nit ki bu jubook boroomam lu mu wax suñ boroom def ko te sëriñ Moustapha ñi ko xamoon ñépp xamoon nañ ne lu mu mas boroomam yàlla nangu ko mustajaabu daxwa la woon lu mu ñaan yàlla nangu ko nit daana jaaxle ci lu mu mën a doon moo xam tawat la wala yite àdduna wala lu mën a doon bu ñëwee ci moom bu ko yëgee da ko ja da ko cay daal wax la cay am te nam ko waxee noonu lay ame xam naa sax jërut di wax ci mbooloo waaye sëriñ Basiiru mii nga xamante ne mooy xalifa borom daaru toog na sëriñ Moustapha May ne ko da gudd fan Ah, da nga fan du lépp lañu wax ci bass nak waye la seigne Moussa may waxone histoire euh, histoire firndel nako kon koku xam ngeen ni lamb tuuton amna lu bari lu mu ko waxone lo xamantene mom seigne basirou tek na ci beutam kon lamb tuuton lam daan wax lu mu wax rek ñako ñu bari man ne lu mu wax rek nit ñi tek nañ ci seen beut ndax lay xew ëllëg moom ku dul nitu yàlla mënu koo xam te wax na ko ba tàyyi ëllëg joojee ñu ña ko ñam ko waxoon ñu fekke ko ba wax ba ba ba mën koo nettali sëñ Basiru Anta ci la bokk mu nekkoon koo xamante ne it xaritam la woon xaritam la loolu sëñ jiili ñoom ñii ak sëñ Mbàkke mii toog mën nañ ci seere mbégteem sëñ Moustapha May moom bu ma gis sëñ Basiru Anta Ñaŋ ñépp koy xam ñoom ñaar dañ dañuy mel na ay doomi bàjjan rek dañ daan tooñante di ree lu ne rek mu wax ko waaw sëñ ji li mii sax yaakaar naa bu masaan ñëw léeg-léeg sëñ bi ne ko waxal waxal kii nàngam <laughs> waxal sama am nàngam loo xamante ne boobu sëñ ji li gone la woon waaw loolu kon ak mbëggeel ak cofeel ak soppante fa la mën a yem mu daan ko eh, seeti lu baree bari fu ne fekk na ko fa moom sëñ Basiru fu ne fek na fa seigne Moussa ngir kolere gum amante ak mom ak tiofel gum amon ci mom mu nekkone yit ko xamantene manes na naa ci mom ci ne ku amon njariñ ci doomu adamay la won te wax nañ ni ki gën ci nit ñi moy ki ëpp njariñ ci nit ñi ndax jaamu yalla mom ga ci ëpp solo moy jaamu yalla ci jaam yalla yi seigne Moussa nak fofu la mané ñëpp ndax yaakar na bayiwu fi dara lépp lu mu amoon doomu aadama yi la ko jariñe ittey doomu aadama yit mosu koo dégg te la lam ko fekkee defu ko ci loolu it mënees na ko caa jànge mënees na caa jànge ci eh, tudde giñ ko tuddee sëriñ Moustapha May mënees na caa jàngee yit ci ne ku juboo woon ak ay bokkam yépp la waa ndax sëriñ Moustapha Absa mi ngi fi tudd léegi niñ demoon ñëpp xam nañ ko ñeneen noonu ñeneen noonu sëriñ Moustapha daal bisam yaakaar naa daarul moxti gépp la yitteel nit la it koo xamante ne histoire daaru moxti moom mënu koo fàtte waaw maanaam ak fonkam lislaam it doy na ci seere mooy sëriñ abdul xudus ku mu doyloo ci diineem kooko yaakaar naa ne lislaamam ñëpp war nañ ko mën a seere te ku doyoon sëriñ abdul xudus la it ba ci diineem diineem moom sëñ abdul xudus sëñ Musaa may doyoon na ko ci akuk maandoom te fekkee na léppam kon sëriñ mu saa May mooy koo xamante ne kuñ war a jàngaat la kuñ war di fàttaliku la kuñ war a xamal génération yi la ak ñi nga xamante ne dañoo toll ci am model ay model ndax modèle yi dafa bari jamono ji kenn ku nekk yaa ngi xool fu ne waaye fekk na lu la jege nga jël sa bët di xool leneen te fekk na loola fees na dell sa bët boo ca royoon mu doy sëkk nga mën cee jariñu àdduna man cee jariñu alaxira kon yàlla na nu ko yàlla fayal yàlla na nu yàlla taas it ci barkeem ndax euh, barkeem ci ak dundam ku ne gis na ko kon gannaaw bu mu fi jógee la gën a man kanamam la gën a man gannaawam la gën a man ci kanamam kon yàlla na nu yàlla taas ci barkeem sëñ mbacké mi yit nek jambar jo xamanteni ku nangul mama mi la tambalé ko ci sëriñ Abbas ku ne xam na ne xaritam la xaritam la won taxaw na fu ne di len liggéeyal liggéey bo xamanteni ne la ci am bëggut kenn xam ko mom sëñ mbacké mi tok luy seen yitte bu ko yeggé kenn du ko ca man jaaral ko ci mamam ji fi nek muy serigne Bassirou Anta ku ci taxaw la ku taxaw sëriñ Basiiru la ku ko nangul la it ku am yitte ci moom la it ku koy nemmi ku la ku am ci moom euh, yërmande ak cofeel la ku bëgg ay mbiram jub it la kon sëriñ Mbàkke moom it jàmbaar la ci Daarul Muhti ku maandu la kenn déggu ci lan kon yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla na sut sëriñ Moustapha May aw fan waaye sëriñ euh, Mbay yow it sëriñ bi nee na mi ngi lay sant sa taxawaay ci istuwaaru borom daarul moxti ak ni nga nekk maanaam soldaaru borom daarul moxti ni nga ko waxee nee na loolu lu dëggu la ci yow lépp loo dégg ci luy défendre borom daaru wala luy tasaare mbiram wala lu koy wone yaa nga ca te yaakaar naa def nga ci liggéey boo xamante ne mérité woo nga liggéey boobu sëriñ bay nga boole ko ci benn téere benn document ndax àdduna dafa yàgg te it lu baax dañ koy gaawtoo li nga liggéey ci borom daaru jot na lépp loo ci mën a dajale nga dajale ko yaakaar naa dajale nga ci lu bari ci document yi ak ci archives waaye nga gën ci ndax livre bi nga xam ne euh, sëñ Bassirou Anta Niang bind na ko ci borom daaru yaatu na lu ne nga ca waaye bu dee ci wàlluk référence ci wàllu li nga delluwaat ci tubaab yi mbindi tubaab yi ak archives yi loola la nga ci am sëriñ bay keneen amu ko kon jaadu na ñu ànd ak yow liggéey fexe ba loola lépp ñu boole ko def ko benn document benn livre boo xamante ne danañ ci mën a delluwaat ci histoire ci histoire borom daaru kon ñu ngi lay sant bu baax jërul may guddal ndax euh, euh, kàddu cant rek la woon ak kàdduy sëriñ bi te waajaluma ko waajal waajaluma ko dama fee ñëw rek ngir euh, ndigal Don sant rek nak ak am ci yene lol ci bis bi di ci sakku ñaan seigne bakke di ñaan sa barke bay seigne Musaa May ndax wa kana abuhuma salihan nañuy bayyi xel ci ne ku naan nit bay bu baax amul njariñ wala aw sant wala askan amul njariñ da nga jangut alquran am na nitug yàlla koo xamante bu ngeen ko jange ci khudar wa kana abuhuma salihan am na waa joo xamante ne la ko yàlla xettlee ba Seydina Muusa ñëw dencal ko alalam ja ba màgg muy mu jirim boobee te dafa fekk alal ji booba ñu ngi ko denc ci benn ron ab miir te miir baa ngi bëgg daan musaa ñëw ci dëkk bi ñaan leen lu mu lekk nanguwuñ koo may mu fekk miir bi bëgg a daanu mu yëkk yëkkati miir bi euh, xodar moo def lool Moussa ne ko yow miir bii ngay yëkkati ginnaaw ñaan nga leen loo lekk nanguwuñu laa jox loo lekk lu tax nga yëkkati miir bi mu ni ko miir bi alali ay jirim a fi nekk jirim yoo xamante ne seen baay dafa nekkoon nitug yàlla nit ku baax